laali faram Ah, sama ndaw la géwél baa nonu noonu alaaji faram nuyu na la ma lay ñaanal jàmm alaaji mudu mbay bu bax mi no def na ma daan def rek hmm. tay julli ji nga wa julli ji na julli nga aljuma ah, Modou Mbaye la mi julli ji na kay ah fo julli jakke rapide la julli <laughs> dafa am imam bu dégg bu nekk fi sama koñ paa boo xam ne nii da koy ci normal moom daal salaamaaleykum ñi nekk ci kër geeg ñi nekk ci naaj beeg ñëpp lay libéré. <laughs> Fadam Fadam sunu paa bi nekk fii nante la de. ñu day am imaamu paa am imaamu jeune sunu paa sunu imaam paa bi léeg-léeg mu xam nga léeg-léeg mu des sax yëfu paa mais booy bi. booy bi de julli bu gaaw lay julli bu nante sax. laa ilaha illallah mais nag mais yaa ci jàmm maa ci jàmm alaaji Modou Mbaye Modou Mbaye yaakaar naa ne nag ren nag saison bii nag dund nag saison bu neex bo yëg nag ci làmb waaw saison ren bii moom macha allah hmm? saison ren bii waaw sant nga làmb daal euh, Euh, lii gañ na gañ na gañ na gañ na saison gañ naa mel nii wax dëgg yàlla. Hmm? waaw saison gañ naa mel nii. walaay ndeysaan parce que saison mi ngi gëj neexee nii man pour man ci année bi ñoom Balla Gaye di bëri moo Balla Gaye Tapha Tine Eumeu Sène Lo. Hmm? Lac Rose Modou Anta Ama Baldé Ama Neex Malick Niang Sa Thiès. walaay ndeysaan la demee quoi ko saison boobu la may fàttali. mais vraiment ren ndaanaan yi bëri nañu ren boo xoolee ténor yëpp bëri nañ. lan ndeysaan lenn rek laa ci naqarlu mooy Lac de Guiers Lac de Guiers de mi bëreegul. Mhm. lu métti la du yoon. du yoon daa war a bëre. Mhm. Mhm. daf ci bokk. ren ren ren ren ren da nga gis ay révélation ay ñoom ma sa xarit mi ci njob ñoom boo ñu ngi numéro deux wala seen bopp. waaw yoon la si te yàlla min bi ñëw wane boppam. waaw. Hmm? Wow, wala boppam ci digganteem ak ki nga nii mooy Papa Sow waaw may sa xarit mi ci njobb mi nga xam ne suñu mbokkum géwél moomu daal di ñëw wane boppam ci digganteem ak Balla Gaye numéro deux tàmbala saa waaw jox ko roi des arènes ah waaw ak Ama balde ba léegi réew mi gisuñ ko te réew mi namm nañ ko ndeysaan doomi fan laaj lu dogal sur le cas Ama ah, balde. Mhm. xam nga kooku moom bu dongalee rek nga xam <laughs> Iya, moom bu doxee rek moom bu doxee am na benn paa bu nekk ci làmb ji bëgguma hmm. du ma wax turam quoi mais da parce que dafa yor mbër moom daa yor beneen mbër mu ne ma mu saaga ko quoi ne ma kii laay loo ko bañ bañ bu taxee jaaj yi baromb la hmm. nga xam ne mooy ndaanaan lma ndaanaan a ngi ah, noonu moo kaawam nag fa lay bal day bàyyam kooku mënu mënu ta ñàkk bañ a mel nii hmm, que moom fi mu bokk la daa judd fekk ngemb li ci kër gi. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan ni ko sam papa di waxee rek vraiment xam nga mu nekk xale boo xamante ne daa judd xale yi bëgg ko ndax ay moromam rek ñoo koy supporté. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan mu révolutionné làmb Pikine nag. Mm-hmm, mm-hmm. waaw parce que Pikine dëgg la Tyson moo fa ñëw indi chorégraphie mais xale bi li mu indi daa doy waar. Eh, ama yee ama yaa yëngal Pikine. lay barki yàlla waaw di feesal Demba Diop ñoom ñoom ñoom ñoom chance bi ñu am mooy ñoom bi ñuy feesal Demba Diop hmm, tolu ñu ne mbër yu mag yi déedéet déedéet ñoom bi ñuy toog bi ñuy nekk ay xale Ama Balde ama neex nga xam ne daa fees Ama Balde fëgg la nga xam ne daa fees te loolu ay sixième combat wu Ama loolu moo lay wan ni dafa bokk ci làmb te wax dëgg yàlla am na ci cër quoi mm-hmm. moo tax istafam nañ toogaat waxtaan xool mm-hmm. jàppale ko toog waxtaan mm-hmm. te aussi moom Ama aussi mu jéem a professionnel. Mm. parce que làmb toll na ci jamono boo xamante ne nii ci niveau bi mu nekk moroomam yi ci nekk ñu bari dañoo professionnel keroog bi ma gisee Sa Thiès mu entraîné ma xool façon entraînement bi Sa Thiès di entraîné ci laa xam ne làmb évolué na bu baax. danañ ci ñëw danañ ci yow danañ ci yow. danañ ci yow waaw boo xoolee boo ñaan niveau bi mu toll. nga xool Reug Reug niveau bi mu toll. foofu foofu laa bëgg ñëw nga xool xam la ndax dama gis dama gis dama gis noonu nga ci Ama damaa gisaat beneen ndaanaan bu dëkk Pikine di Boy Niang numéro 2 révélation lekk révélation boo xam ne nii dëggal boppam ci làmb xool Pikine foo bàyyam daan luy ci pikin mu tabax ko étage am gëm-gëm ci làmb am vision bëgg a nekk dara ci làmb jël le roi des loolu loolu loolu ban jàngat gi ci am. waaw wareef la. loolu loolu yoon la parce que nit ku ci nekk boo nekkee ci liggéey. dañoo bo boo nekkee ci liggéey xaaral baal ma tuuti sëriñ bi ñun Lagros wax nañ ko de seen génération boobu la ñuy wax xalilu laa génération ñoom ama boobu la ñuy wax rek mooy Lagros Modou Anta ama Garga Mbossé Moussa Ndoye ñooñu feesal nañ Demba Diop te tollooguñu woon ni bari loolu moom dépassé nice loolu c'est vrai mhm. ñu nekk ci booy ñaan booy ñaan waaw xam nga booy jàng booy liggéey dara da ngay ñaan yàlla egg au sommet mhm. Mhm. et bu ñu fàttalikoo y'a dix ans ci ginnaaw bala gay 2 Lac de ah ñooñu ñoo fi génne mag ñi fi nekkoon. dëgg la. dix ans mat na mataat na dix ans. Mm-hmm. fukki at doxaat na ci diggante bi. Mm-hmm. ci diggante bi Balla Gaye numéro de dooleem da ciy wàññeeku Boy Niang dooleem da yokk parce que xale la. Mm-hmm. ci diggante bi Balla Gaye numéro deux notoriété am euh, train de vie bi muy dund du ko may yenn temps d'entraînement yi. déedéet parce que ñoom foog nañ ni yegg nañ au sommet et boo yeggee au sommet pour ñoom waratoo def lu metti Uhum. te deedet li eh, eh, li gën a metti mooy yegg au sommet ba pare maintenir sa bopp au sommet teeku fa teeku fa comme la Yaxya Diop ni mu ko defee pendant des années loolu nag li la koy may sérénité la ak professionnalisme mooy li ma lay wax ba léegi ci làmb da ngay professionnel mhm. làmb da ngay professionnel da ngay am staff bu baax da ngay am staff bu baax da ngay am staff bu saay-saay parce que làmb yëfi saay-saay la saay-saay bi mooy da ngay mën a anticiper wala ndeysaan comprendre nga. Mm-hmm. moo tax mu nekk loo xamante ne ni xam nga lu doy la Ama Bal euh, Boy Niang vraiment yegg na ci yegg na au sommet loolu la waroon a def. moom ak Modou Lo nag taxaw na e combat bu jaadu la parce que ñoom ñoom ñooy tofoy ñoom Modou Lo. Mm-hmm. ñoom ñooy tofoy ñoom Modou Lo ñoom ñoo topp ci ñoom Modou kon bu ñu ñëwee bëreeg bu ñu ñëwee ba bëree ba war a bëreeg ñoom. ah foofu nag làmb ji toll moo lay wane làmb ji dina neex. parce que ñaari génération yi yi daje fi mu toll nii fii ak deux ans trois ans ñaari génération yi daje génération la yooyu doon yoo xamante ni nii kii day bëgg tog toog resté mais ñun moom làmb ji ñooy mag ñi ñii ñëw na ñun ñooy xale yi ñun ñoo leen fiy jëlee moo tax deux ans yi di gis ay combat choc yu metti loolu laa doon wax nee naa sànq rek maa ngi ko wax bi may débuté laaj bi nee naa leen bëri ma promoteurs yi nga daan gis ci làmb ñu daan tëgg làmb am na feeg deux ans ci kanam combat njëriñ bi bëri dootuñ ci mën a jot. déedéet ndax dafa am label yoo xam ne dañoo ñëw ci làmb te yaakaar naa ne bés yu mag yooyu da leen jaral lu ne ci làmb. te làmb daa war am label yu mag yooyu. mais imagine Modou Mbaye tey jii bi nga yëgee ne Modou Lo jëloon na avance Ama Baldé am tolof tolof bu ci am ñu ñëw ñu ne Modou Lo jël na may si xarit bi ci njaboot di Boy Niang numéro 2 di ñaari avance yoo xam ne nii mu ngi fanaan ci la poosam yu dëkk Pikine loolu noo ko jàngatee. waaw làmb la xam nga avance bu njëkk bi moom bu fekkente ne dañ ciy wax rek te ñun ñu nekk ci làmb wala ñun ñu ci ñun ñu xaw a jege. Mm-hmm. ñëpp bu ñuy wax war nañoo mën a wax sénégalais yi li ci nekk. lan moo ci te ñu bañ a réeral sénégalais yi sénégalais yi am na suñu bëri ñoo xam ñu ngi di wax ci ay erreur avance boobu combat boobu mënul am parce que combat boobu dafa nekk ci yoon. le promoteur Luc Nicolaï dafa nekk ci yoon moom ak waa xam nga dañoo dem ci yoon parce que dañoo am problème dañoo am ñàkk déggoo ci wàllu droit yi kii jaay na kii après jaayaat kii droit problème am waa ji porte plainte ba porte plainte le directeur administratif du CNG Ñambe Diop loolu moo tax Luc Nicolaï Enco la ñu gisoon ni moom moo tëggoon làmb ji ñu dem ba ci biir ñu ne Willy Nicolaï mm. combat boobu amagul nañ nañ bàyyi nañ bàyyi combat boobu mu jëm ci Mesa xarim ci jàppul fofu loo ci wax digënté ak Boy ñing numéro 2. mu do keroog bi bi bi ko gisé ci signature bi mu ñëw tok modlo tok nga gis modlo bu bëggat nga gis modlo bu ci nekk nga gis modlo bu sawar lool Boy Niang nako modu Modou nangam mu ne ko bilaay di nga joyat nako ko bi nga dalé bi sama ak sen dama joy ci lamb je mu ne ko dese nga yeneen joy lool nako jagaté aladi El Hadj Modou Mbaye. Lo de bala nga ko yapp <laughs> amu géwél. amul joolaa amul bambara Modou Lo moom balaa nga koy yàpp toogal ci kawam ba pare. Hmm? waaw. lu tax. Modou Lo. lu war a Modou ñoom. Modou Lo tollul ni xool fi mu jaar ak Bombardier. walaay ndeysaan. Modou Lo xool fi mu jaar ak Eumeu Sène. Hmm. Modou Lo tollul ni Lac de Guiers ba tey Lac de Guiers daanu ko. mun koo daan ba léegi. ah. walaay Hmm. Balla Gaye buy bëreeg Modou baxanam lay jël def day def INSEPS. <laughs> Balla Gaye rek la respecté ci ci làmb. Hmm. waaw. Balla Gaye Modou kese la respecté ci làmb boo dee bëreeg Modou da koy jaral mu teg baxanam parce que Modou Lo daan ko gàcce la ci moom. te Balla Gaye Modou Lo ñaar ñi nga xam ci génération bi ñu toll ci làmb ñoom ñoo téye làmb kon ñoom ñaar seen combat choc la derbi boobu Balla Gaye mu daanu ci da koy jaral mu dee. la moo tax Balla Gaye buy bëreeg Modou Lo bu ñuy jugé Balla Gaye buy bëreeg keneen Balla Gaye buy bëreeg keneen Balla Gaye jàpp moom jàpp na ci yaramam ne li nekk ci moom ci bëre. li nekk ci yaram yaramam ci ci doole moom jàpp na ni ku dul Modou Lo moo la mën. mais bu waree bëreeg Modou Lo lay dem entraîner sérieusement. Hmm. Modou Lo Boy Niang combat la boo xamante ne ni en ce pour man quoi pour man fi ñu toll nii. Hmm. le promoteur dafa war a ñëw ñu liggéey. liggéey maanaam ñu fexe combat bi am fii mu fekk làmb am fu mu yóbbu làmb parce que Modou Lo Balla dafa am fu mu fekk làmb am fu mu yóbbu làmb mais loolu lépp événement la liggéey la c'est le promoteur qui a travaillé ci loolu. Mm-hmm. comprendre nga. ndax. à ce moment nii li li dëggal li li dëggal li nga wax ni Modou mbay keroog bi mbëri jàkkaarloowee bi ñu demee biñ jàkkaarloo ba ñibbi nitu làmb yi fa nekkoon yëpp dañoo dal ci kaw promoteur bi ndax lu tax. première jàkkaarloo espoir bu mel ni Boy Niang numéro 2 daan Balla Gaye 2 ñëw jàkkaarloo ak le roi des arènes mi nga xam ne Balla Gaye ko daanoon muy Modou loo nekk ndaanaan Modou Lo gëj ci làmb yaakaar naa ne ñooñu bu ñu waxee rek war nañoo wax loo xam ne dina tax sénégalais fu ñu toogee. non ci wax jooju la ñu naan war nga. non non man fi ma promoteur bi sax fi ma koy rectifier tout mooy jàkkaarloo yu mel noonu gis nga bis dañ koy may valeur. dëgg la. bes dañ koy valoriser combat bu toll noonu du ko présenté du solo mbëri ay blouson dama leen di wax booy sañse leen ñu def costume. dëgg ma woo Malick Thiandoum mu sol costume wala ma woo Cheikh Sarr wala ma woo lamin Samba ma wala ma woo le présentateur bi ko doy mu sol costume ñoo toog ci digg bi. Mm. Mm. promoteur bi sol costume am waaye yow am am classe ñëpp am classe. c'est-à-dire combat dañ koy jaay boo teelee def loolu nga def loolu ngeen def waxtaan waxtaan bi am niveau doo leen wax ci xeex. doo leen wax ci bëre doo leen wax ci boo leen jàppantee déedéet naka la ñu mën a fexe ba làmb ji jaar Modou Lo Modou Lo communication boo xamante ne day tax les partenaires dañuy yàqamti ñëw. booy ñaar mm-hmm. communiquer communication bu tax les partenaires dañuy yàqamti ñëw noonu la ñuy commencé combat. dëgg la liggéey ko may ko valeur jaay ko ba pare bu ñu paree après nag ñu soog dugg ci biir combat ala kulu àll wax ci kii ni muy bëree kii ni muy xeexee kii moo mën kii loolu lépp dinañ ci dugg mais dafa am lu jiitu. walaay ndeysaan. tax maa ngi nuyu bu baax. a baax Abdou Aziz Ala Ndiaye année bi ma lay wax nii 2013 2014 bi ñu mhm. tëggee Balla fàttalikul bi ñu tëggee Balla Gaye Tapha Tine Modou Lo Boy Niang chantier fii 2STV yi nekk léegi waaw boo fàttalikul lañ leen defaloon signature bu musul am bu ñu sol ay costume mooy ba ba Pape Diouf ñëwoon du boobu bo ba su ma du ko wedd de waaw waaw ñu sol ay costume ñu ñëw toog ñu liggéeyal leen ci loo xamante ne nii ñu ñu liggéey ñu jaay affaire bi Mm-hmm. mais pas mm-hmm. mais pas ñu ñëw nii toog ku nekk sol costume ñëw non non boo ko jàppee e dugg naa pikin dugg dugg pikin teel na. dëgg la. li mu dugg naa pikin teel na dugg naa parcelle teel na en ce moment combat bi déwén la jëm nañu fexe ñu jéem a fexe orange jënd combat bi partenaire yu mag yi jënd combat bi mais liggéey moo koy maye mais mais du yëfu como yi. non keroog moom keroog moom niveau bi daf ko dañ ko wàccee trop. kenn non niveau bi c'était trop bas maa ngi jégalu nag. waaw mais mais balaa maa ñëw ak yow ci Sa ak ak nga xam ne duñ ci yàgg dañ koy dañ koy briefing rek euh, dama am benn combat boo xam ne maa ngi koy dégg muy Siteu ak Ama Baldé maa ngi koy dégg am na am na promoteur yi ma ciy dégg ñaari label yu ciy xëccoo te bëgg nañ ko mais combat boobu bu taxawee Modou Modou mbay fan la mën a yóbbu làmb loolu ce sera le meilleur combat de ces dix ans dix ans yi nekk sunu kanam. la ilaha illallah. Hmm? loolu mooy ci dix ans yi te combat boobu bu amee maa ngi ñaan promoteur bi mu def ko arène nationale vert zone mu def ko billet dix mille francs. dégguma li nga wax de Modou Mbaye. maa ngi ñaan promoteur bi tëgg combat avant Siteu vert zone. mu def ko 10000 francs billahi promoteur bi tëgg Ama balde Siteu mën na baña a pertati ci lamb bu tëggee lamb joj ba pare mën na def tëddi nelaw <laughs> yàlla na ma yàlla may xaliss bama ma lamb joj te man te man man sama main, sama main, fu tol ni. Sita sama frère la Ama balde sama frère la toog na ci waxtaan man ak Siteu man mana mana hé mu ne man na man ko kañ dem séti Ama balde gaane ñu tok ñu waxtaan ñu tëgg lamb ji ñun ñatt ñu tëgg lamb ji ñu def business la ilaha illallah cité na ma waxtaanal ak Ama ba tey barki Serigne Saliou mënumaa gis Ama. barki Serigne Touba man cité Ama damaa bëggoon ñu tëgg combat boobu ñu def ko loo xamante ni nii kon laam kon dinañ ba ay waay. mais mënu may Ama Baldé rek mu war a dajeeg cité ki signature combat boobu taxaw bu coowu làmb fan la jëm. Euh, euh, euh, Ama Baldé Siteu moom suma ma tëggoon seen combat seeni jàkkaarloo yëpp triplex laa koy def du ma mës def ñu daje. la ilaha parce que ñu daje day ñu daje dafay ëpp dafay ëpp loolu dafay ëpp. tu sais y' des inconscients derrière yaa ñoo xamante ne du ñu comprendre que ñii dañuy sport rek dañuy fo dañuy xumbal Siteu ak Ama ay xumbalkat lañ. ndeysaan. comprendre nga. mais am yo xam dañu xam loolu mais billahi Siteu Ama Baldé mooy combat bu dàq ci mais kaay ma wax la. mais tous ma dañ koy séddoo moom. tous ma dañ koy séddoo waaye bu aju sifle Siteu xam ni Ama faalewu ko. lan da koo lijjanti. te doomi faale ba mais yàlla mi daa màgg liggéey faalewul mbindeef bu at sifle woon ci digganteem ak Modou nga xam day dox ci kawam faalewu ko. nga Modou Mbaye loo yox nii. yonent bi da doon dox ci kawam billahi day dox ci kawam. Yaya eh, Ama Baldé bu jëlee sungu su ba sànni ko ca gannaaw. bu arrière daanu xamul loolu. oh. ti lamb. lamb dafa doy waar. mais mais mais saison ren bii ñu génn nii lan nga ci dund lu la gën a neex ci combat yi ñu jàll yëpp ban ban combat nga gën a yëg ne lamb la lambe lambe na. combat bu ma yëg ne lambe na lool. Hmm. man daal benn combat kontaan naa si. ci ni mu demee du ma fen mm-hmm. mm-hmm. mooy Ada Fass kontaan naa trop ci li mu daanu mënu ma dégg ma kontaan naa trop ci li mu daanu parce que bu daanoon mm-hmm. bu daanoon laa mu ji kenn dootul dégg hmm? Ada Fass bu daanoon laa mu ji kenn bi da ngaa oh. la ah très bien du mi ngi nii di bëgg a dem INSEPS Mm-hmm. mi ngi nii bëgg a def INSEP mi ngi France nii daa bëgg a def INSEP. loolu baax na ci moom trop. léegi dina tax bu beneen yoonatee boo amatee combat dina respecté boppam dootu sumeeku ci mbedd yi dootu ñëwati làmb. ñëw làmb naan eh, Zarko tël ko Zarko tànk la ko doo tël. foofu nag laay duggee ci benn combat boo xam ne nii ca la ñuy tëjee loolu daal di ñëw. ci coow li nag nga xam ne nii ci la jëm dimanche damaa gis Zarko dugg Ndakaaru daan caat bu booy bambara duggaan Ndakaaru daan mbay guy gi duggaan Ndakaaru daan Ada Fass ñu yaakaar ne Zarko di génn Ndakaaru mu dëppa jël le phénomène de Ndakaaru mu jël Kéré le fils de Kéré Modou Mbaye loo jàngatee loolu. waa Ada Fass ñu ne ñibbisi na. ñibbisi na démb ñibbisi na waaw ñibbisi na kon ñu koy ñaanal yàlla defal ko jàmm. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla defal tawféex quoi. Zarko Zarko. Diène Zarko waaw jël na Diène Kairé mais est-ce que Diène yoonu Zarko la woon. dégguma est-ce que yoonu Zarko woon. loo wax. Diène du aada de. mais mais Mourou ma Zarko xam na Diène Kairé. moo tax man la Diène est-ce que Zarko yoonu Diène yoonu Zarko la woon. parce que Zarko mi ngi ci lancé boo xamante daan na Baye Mandione daan nga Mbaye Guy gi daan nga Ada Fass non damay fippu ji Siteu laay bëre jël Siteu laay bëre mm. jëm fa lekk benn soixante millions wala jëm fa lekk benn cinquante millions lu mu ndaw ndaw parce que mm-hmm. la Siteu Guy gi la fi daan daanaat fi Papa Sow mais damay fippu xeex bañ ne damay bëre Siteu revanche mm-hmm. mais xam nga làmb ji moom léegi xam da ngay bëreeg nit ba pare ngeen nekk ay xarit. du yoon. wax dëgg yàlla te loolu lu may naqarlu la Zarko Siteu amuñu pour nekk ay xarit. lan la ñuy nekk ay xarit lan la ñuy nekk ay xarit. teguñu ko sax ñoom ñaar. ñu ko fenn loolu yëfu tapet la. dañuy yàq lab rek yëfu tapet la dañoo ragalante. Eh, ku nekk di daw peloton. Siteu ak Zarko combat njar dem combat coow boobu ñu dem di nekk ay xarit mais Zarko dem jëli ji jën kay rek loolu Modou Mbaye doo ko jàngatee. ah. na yokk bëreem moom Zarko. Hmm? na yokk. na yokk dooleem. na yokk bëreem na yokk dooleem. waaw te na yokk xeexam. lan la lan nga ji lan moo tax nga wax loolu. parce que loolu ma la wax yëpp dafa daje ci jéen. daa mën a bëre doomi mbër la te jën kayre seetaan nañ ko mu bëre. ay adversaire yu coriace la jën kayre daan daan na booy bawal. Marley mi tës soq berk démb Diène Kaïré da ko daan. laa ilaha illallah. combat yu métti la bëree booy koña bi mu fi tawee koña bu mag bu xeesoon Pikine. waaw Diène Kaïré da ko yenu buddi ba ci kaw dóor ci suuf. boobu mu ko fi të. Modou Anta Modou Anta daan Zarko mu Diène da koo daan. avec la manière. moo tax Zarko combat boobu da ko bu ma doon Zarko nag li mu def ci Ada loolu bi mu def ci Arafat toog kenn dégg ko fii la koy gën a yokkee fii la koy gën a doolee def hmm. Hmm. waaw ndax adversaire bi muy bëreel mais man Modou Mbaye dama gis ne Diène li mu toog bëriwul yëpp munoo dox ba gis ko loolu gis nga mbër day am gétt mbër da ngay am gétt mbër da ngay am foo xamante ni boo bëriwul fa ngay ne te Diène Kairé hmm. am na chance moom Mbagnick boo xam seen baay mbër la woon seen papa ko man man Fadam sampapa, papa sama papa fumu man buma fa échéguer rek c'est parce que suivre mako mom deug la deug na la. té mom fumu échéguer man dama fa wara Degle. Pas kawan la. parce que war na xol liko ko échec loo ma moytu lolou deug la motax nga am sa jour sa baay mu nek ci mbir nga ñëw nek ci lolou chance la ci yow. deug la deug la bo xolé bu ñew ni def boy ñaala ni def jéen. waaw. waaw ku koy ku koy wër Lac de Guiers tey Tekano la mbëri dañuy sodde fii ku fi hmm. bëri doomu mbër pa mbëri dañ lay sodaale <laughs> loolu am na solo loolu am na solo foofu nag laay ñëwee ak yow ci coow li